yow sunu boroom warfa fax yal na nga koweel nizaamiya saatiri bii di jaalibatal maraqib saa joodan ndax yaay boroom tab gi watak rimatan yaay boroom tedd nga ji yaay boroom teraanga ji wasaaroo ji yow sunu boroom wala taru dannahu yàlla bu ci delloo si dara yal na nga nangu lépp yaa musibal xilali yow yaay dindi mboolem xeeti tarxiis ya yow yaay aji dindi ja mbooleem xeeti rëcc rëcc ya kon yow sunu borom moom maa ngi lay ñaan dumma nisaama yàlla na nga boole woy wii di jalibatal maraqib ila sëx yi sihaabi ca mboolem jëfi saxaaba ya xaddan ëllëg keroog yowmal xiyaam jëfi saxaaba yi nga xam ne ku dul yonent ya ñoo la ëpp yal na ca boole sama jëf ji di téere bi amiin wala taruddannahu bu ko delloo si mukk di ko ñàkk nangu yaa musibal xalali yow mi nga xam ne yaay dindi mboolem xeeti wéet ya ku dut yow yàlla lam arju yaakaaruma ko man sëriñ Tuuba fii sirrin ci lu nëbb yaakaaruma kurut yalla di yow moomu wa fi xalanin ak ci lu ne fang yaakaaruma kurut yàlla yow sunu borom. bi àqi wajhika ci àq ju màgg ji nekk ci sa jëmm ji yow sunu borom aqiix yal na nga dëggal lii ñeel ma rajaa sama yaakaar ci yow anali yal na ma ko maye ni ma ko yaakaare ci yow yaa rabbi yow sunu borom. mi aji màgg ji nguur kun lii yal na ma nekkal man sëriñ Tuuba waxudu lii yal na nga omat fi man birida ànd ak ci àddina ak àllaaxira xorod yi mboolem say xememteef man sëriñ Tuuba amin wama lépp loo xam ne iltamastu maa ngi doon làmbatu ngir jéem koo am ci aw yiw bi jeexil muntaqa ci darajaay yonent bi kay ku ñu tànn salaatu wassalaam ani yal nag ma ko nangul yal nag ma ko may amin salli wasallim yal na dolli teraanga ak jàmm alal ci ku ñu tànn kii di muhammad alayhi salaatu wassalaam fil kurama ca mboolem xeeti teraanga ya wa bassiran yal na nga dolli bégal bi nasmi ci saawoy wii afdala rusuli ngeen ji yonent muy muhammad alayhi salaatu wassalaam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoona wa salaamun ala al mursalina walhamdu lillahi rabbil alamina loolu mooy jeexloob téere bii di jaali maraqib téere bii ñoddi mbooleem xemmem teefiya sëriñ tuuba bind ko def ci tawasul gu mag ni ki jazooli defoon ba muy bind ba bind ba noppi téere bu mag boobee ñuy woowe dalaa'ilul xayraat te wàll yu mag wu ñuy wax jazooli moo bind téere boobee di dalaa'ilul xayraat waaye ba mu ko bindee ba noppi moom jazooli da ko tabal ci géej def ci tawasul ne bu ko yàlla nangoo yal na téere bi dellu siwaat ci samay loxo toog juróom benn weer téere ba am ku ko for bam ko foree tamit xam na ne téere bi tooy na ci ndox ba woowaat ca melokaanu téere ba ndax kayit bu tooyee ci ndox ba woowaat boo ko gisee danga koy xam waaye yàlla def wenn bind raafu ca dara yàquwut ca téere ba wenn kayit man wu ca mu ñëw indilaat ko jasooli jasooli xam ne tawasul bu mu defoon ci téere bii yàlla nangu na ko mu toog ay ati at ay daanaka lu ëpp juróom-ñaar téeméeri at Sëriñ Tuubaa tamit ba mu jàngee histoire booba bi mu bindee téere bii ngay jeexal nii di jaalibatal maraqib tawasul bu mel ni tawasulu jazoli ba ca dalayul xayraat la defaat ci téere bii ñu koy bind mi ngi ci biir géej gi mu tabal ko ci biir géej gi moom sëriñ tooba daal di ne bii bu dee yàlla nangu na ko yàlla na dellu siwaat ci samay loxo man sëriñ Tuubaa toog na lu mat ñeenti weer ak lu teg benn homme de loi ca homme de loi ya nekkoon ca Gabon ca ña daan garde poste ya am ko ko for ca booru géej ga fekk mu wow koŋ waaye tooyaay ba ku ko gis xam ne téere bii daa tooyoon waaye wenn bind tapput wenn raafut wenn kayit manqué wu ca mu xam ne lii bagage sëriñ Touba la ndax fii ci Gabon kenn du fi yor téere yu mel nii kurut sëriñ mu indi ba ci sëriñ mu won ko téere bi sukk summi dàllam sukk jàkkaarloog sëriñ Tuubaa tàllal ko téere bii ngay jàng muy jaalibatal maraqib